mu ngoog mbokk yi loolu moo nekkoon euh, ponkel yi bu ko defee ñu ànd ak yéen ci yaatal gi ñu dooree ko ak euh, bataaxal bi nga xam ne nag mu ngi bàyyee ko ci nguur rawatina jorin bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu njaay mi ñoom nag di Ministry of Trade Regional Integration and Employment ñoom nag ñu ne ci passe-passe bi nga xam ne nag am nañ ko euh, pour fexe ba gis ne daal bagage yi nga xam ne nag moom mooy bagage yu dund yi nga xam ne nit ñi soxla nañ ko lool mooy li ñu ooyee major essential commodities nee neen loolu euh, si passe-passe bi am nañ ko pour di ko mën a jot waaye tamit nag mun a woyof ci li nga xam ne nag moom mooy kaw li di askan wi rawatina nag ci jamono yu métti yi nga xam ne ci la àdduna bi nekk mooy ci jamono yi mbas mi di coronavirus gannaaw bi ñu ci génnee ak xeex bu métti bi nga ne nag mu ngi am fële ca li di i diggante ak ñi di euh, Russia nee nañ mbir yi mooy firnde yi daal tax na ba ñi nga xam ne ñoom ñoo doon defar bagage yi nga xam ne nag moom la nit ñi doon dundee nee nañ daal dafa wàññeeku bu baax a baax ci réew yi nga xam ne moom ñoom ñoo ko doon defar ak ci buntu yi nga xam ne fa la doon jaar ba muy àgg ci li nga xam ne nag moom mooy suñu réew nee neen daal nguur gi nag ci pas-pas bi nga xam ne tamit am nañ ko pour fee ba gis ne askan bi nag dinañ mën a jot ci lii di bagage yi i kuréel gi ñuy ooyee National Food Security and Marketing nee nañ nag euh, jamono ji ñoom ñoo daal di def ab taxawaay taxawaay bu mucc ay pour fexe ba andi bagage yooyu daal di koy dugal ci réew Gambia yooyu nag lu tax ñu daal di koy def moom mooy pour oyofalal nag dund bi nag ci kaw lii di gambien si ba nga xam ne bagage yooyu nga xam ne nag ñu koy dugal ci réew mi nag askan bi nag mën nañ koy jot ba tax na nag coopération booba mooy kuréel googa nee nañ fu mu toll nii nangu nañ sas bi ba génn nañ dem foofu la ca lii di bitim réew dem jëndi foofu ay bagage yi mel ni diwlin ndaxte nag euh, diwlin boobu daal nee nañ lu toll si téeméer fanwéer ak juróom-ñeent ci ay container moom lañ dugal nag réew yoo xam ne lépp ay diwlin la yoo xam ne nee naka ñu ngi ko dugal euh, fii ci biir Gambie léegi nag bagage yooyu ñu ngi ko dugal foofu la si seen head office bi nekk fële ca lii di Denton Bridge léegi nag li ñuy wax mooy ne képp nga xam ne moom mooy toggee di ko jëfandikoo ci réew Gambie mën ngaa dem foofu la ca GGC fa nga xam ne foofu la kuréel gi euh, foofu parce que nag nee nañ njëg bi nga xam ne nag moom lañ koy litre bu nekk moom lañ ko jaay maanaam daal 20 litre bu nekk nag moom lañ ko jaayee euh, ca li nga xam ne bi ñu denk wàllu njula nag euh, la def si ñoom te ñoom it ñu ngay ut nga xam ne moom lañ see pour a euh, saafaral yooyu la jafe-jafe yi nga xam ñu ngi koy jànkuwanteel waaye tamit ci loolu ñu ngi yëgal askan bi ne ne ministre bi ñu ngi ut tamit yeneen pexe nga xam ne nag moom la ñuy si am rawatina si li jëm ci wàllu njëg yi nga xam ne nag ñu ngi koy jëndee bagage yi nag ci marché bi kon nag ci loolu ñu ngi yëgal askan bi ne bii taay bu mucc la bi euh, taay bu mucc ayib la bi nga xam ne def nañ ko waaye bii tamit moo nekk njëlbeeni jéego bi nga xam ne nag ñu ngi ko see dox pour mun a euh, teggi askan wi bile njàqare